bismillaahi rahmaani rahiim rabbi srax li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu xawli bokk ñu déglu asalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu asbaxnaa wa asbaxal mulku lillaah walhamdulillaah wa laa ilaaha illallaah wallaahu akbar allaahumma innaa nasaluka xayra maa fi haadal yawmi wa xayra maa ba'd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 daal jaajëfal alxaaji suñ mbàkk si li mu nekkoon ci jataay bi naanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara tabarakallahu neen ko jige woon moo di toll ci semaine bi nga xam ne ci la ñuy jeexal sunu séminaire bi mu jeexe nag ci kaw séminariste yi ñu ngi ci kër yi fi ne ci centre bi man rek maa fi nekk ak sama technicien Pape Lay Dieye ñuy wéyal waxtaan wi ci noonu tolloon nag ci di jeexal si nag di jeexal si séminaire bi am na ci séminariste yi ak parents yi ñoo xam ne dañu jàpp ne war nañu ko jéem a defal sax session deux yàlla baax na lu jiw a jeexul jógu fa lu jiw jeexul jógu fa bi ñëkk jataay bi démb danoo tolloon ci alaamaatu xayaatil xuluub màndarga mi wone ne nit ki xolam a ngi dund waaw màndarga moomu ci la ñu tàmbali woon nit ki ni muy yëge ne xolam mi ngi dund ndax waxoon naa leen ci laay jën jàngoon keroog walla démb sunu borom naan inna fi dhalika la dhikra liman kaana lahu qalb kon baatu liman kaana lahu qalb te nit ñi koo séen muy dox mi ngi xol kon liman kaana lahu qalb am na leen lu muy tekki kon ndekete nit mën naa yor xol waaye ndekete xol bi dundut daanaa ko wax sama mbokk ma xabaan jaw ma ne ko lii oto ci senegaal lépp bu fekkoon lépp a ngi dox ku ne am oto li woon li ci senegaal ci ay karkaas ki yëf bu lépp doon dox ñépp am oto waaw malheureusement lépp doxul li taxaw ba moytul moo ëpp liy dox xol tam nun la mel nit dana am ab xol ba noppi waaye xol bi dundut nit am ab xol boo xam ne xol baa ngi dund moo tax inna fi dhalika la dikra liman kaana lahu qalb màndarga yooyu dafay feeñ ci nit sunu borom subhaanahu wa taala wax ni inna alladina taqaw isa massahum taifum min alcheitan tadakkaru fa ida hum mubsiruun ñi seen xol dund fu leen seytaane kobase ñu yëg ne seytaane kobas na leen ñi seen xol dundul bu leen seytaan doon këmëxit dun yëg ne mi ngi leen di këmëx inna alladina taqaw ida massahum taifu min alcheitan tadakkaru fa ida hum mubsirun basira googu di nit nit di amee ci boo ko seytaane kobesee ci màndarga yi wane ne xol a ngi dund ci la bokk waaw ci màndarga yi wane ne xol a ngi xol a ngi dund ci la bokk moo tax kullu muminin maxmuumul qalb ñu ne ko luy maxmuumul qalb mu ne huwa euh, huwa taqiyu alladi laa aysha fiihi wala laa gisha fiihi ila axirihi aw kabaa xaala nee na bépp xol boo xam ne bii rëcc amu ca rëcc mooy tricher naxe bépp xol boo xam ne bii tricher ak naxe nekku ca bépp xol boo xam ne bii bewte nekku ca wor nekku ca bépp xol boo xam ne bii coxor nekku ca ak kañaan kooka xol bi mu yor xol bu wér la yàlla nañ ko am ngeen am ko alaamaat yooyu mbokk na ca afaman sharax lahu sadrahu lil islaam fa huwa ala nuurin min bi waaw loolu ab laaj la muy koo xam ne kii yàlla may na ko dënn bu yaatu dënn bu yaatu ba jural ko euh, jural ko dënn bu yaatu ba jural ko euh, leer mu mën a dox ca leer ga jëm fa mu bëgg a jëm waaw tubarkalla kon lu yaatu loolu nga xam ne yàllaa koy def ci xol loolu dafa bokk ci gay wane ne xol a ngi xol a ngi dund kon xale yi yéen ñi nga xam ne yéen bokk ci séminaire bi te jamono yi fekk leen ci kër yi ndax euh, tëral gi nga xam ne tëral nañ ko ci loolu euh, maa ngi leen di wax ne nit war naa yittewoo xolam al inaaya bil qalb nit ku ne ci ñun muy man mii di wax ak sama technicien bi Pape Lay Dieye ak yéen ñu ne ci seen kër yi te jamono ji ngeen di ànd ak ñun séminaire bi bu nu ñibbee ñu yittewoo sunu xol bokk na ci yittewoo xol zikrullah zikrullah zikrullah waaye bu la kenn wax zikr boo xam ne day wax ko def nàngam am nàngam <laughs> bu leen dugg ci yooyu ku def nangam am nangam ku def nangam am kër ku def nangam am wërsëg yooyu zikrullahi def caa tuuti dangay fexe ba zikru jural la ngërëmul sa boroom ku am ngërëmal sa boroom loo bëggati am ko waaw la hadis baa ngay wax ne li kulli shay'in soxaala wa saxaalatul xulubi dikrullah nee na lu nekk dafa am lu lay dàggi dafa am lu lay raxas daa am lu lay fóot mu ne xol li koy daggee ko fóot nag mooy zikrullah waaw xol li koy dagg mooy zikrullah mu ngoog kon bu ñaaral ba ci yittewoo xol yi mooy ataalluqu bi kitaabillah bu ngeen fi jógee ba ñibbi walla bu ngeen jeexalee séminaire bi ngeen bàyyi xel ci téere bi yàlla bi téere bi yàlla bi mu di alquranul karim ndax alayhi salaatu salaam ma nga doon wax ne alayka bi tilaawati alquran fa innahu nuurun laka fi l ard wa duxrun laka fi sama waaw waaw nee na saxoo leen téere bi yàlla bi alayka bi bi tilaawati alquran mu ne maa ngi leen di dénk kon man tam ma jottali leen dénkaan loolu yéen séminariste yi góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ne ci biir kër yi ak seen parents yi yépp maa ngi leen di jottali ndénkaanil yàlla loo ndénkaanil yonent bi loolu mooy dénk naa leen jàngal xuraan ndeysaan dénk naa leen ko la moo waxoon ndeysaan sama bàjjan téeméer soxna Jóob rekk mu xëm waaw na ngeen yëg ne bëgg naa leen rekk ndeysaan dégg naa keroog ndékkiwul dañu kenn mësuta gis loolu rek mais soxna Jóob bàjjan yaay Maodo yal na ko yàlla yërëm mu ne kon dee leen jàng alxuraan ndax alxuraan bu ngeen ko jàngee leer la ci suuf waaye ab denc la ca kaw bu ngeen di jàngal alxuraan da ngeen am ak leer ci suuf waaye dangeen ngeen ab ab denc ca kaw Hmm? waaw ci ca kaw ah fi mu nekk nii léeg-léeg nga gis ku yor portable mu oyof ndekete la ci nekk ci crédit tabarkal la waaw la ca nekk ci crédit ak la ca nekk ci gone googu nuy yónni <laughs> waaw suñ jamono ja maag ak Iran ndaw ca ba ñuy dajale loolu ñu doon dajale waaw ba ñu doon dajale loolu ñu doon dajale léeg-léeg ñu yónni gone gi ba gone gi bu ñëwee bu sonee duñ ko jël ñu ne lu xew ñu ne dafa plafonné <laughs> boo gone gi mu sonee bu ñëw duñ ko jël ñu bàyyi xel ci loolu kon séminariste yi ñetteel bi mooy muraqabatullah waaw fuglu yàlla di leen bàyyi xel yàlla te di ko sóorale ci seen yépp ndax loolu daa baax ci xol waaw fuglu yàlla fuglu yàlla ba yi nga xam ne moo leer ne lii dagan na fa tabiuhu topp leen ko fuglu yàlla ba li nga xam ne leer na ne lii daganut fajtani buuhu moytu leen ko fuglu yàlla ba li nga xam ne léeragut dagan nga léeragut araam nga leeragut laaj leen ko boroom xam-xam yi luñ leen ci wax ngeen def ko waaw ndax borom ba ma ngi wax ci alquran ci laay ja wa laqad xalaqna insaana wa naalamu ma tuwaswisu nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid ku mel noonu nag ku ko xam danga ko war di fuglu di ko bàyyi xel te yëg ne mi lay bàyyi xel maa yakunu min najwa thalaasa illa huwa raabiuhum koo xam ne nee na fu fu ñett di fu ñett di reeñooy mu ñeenteel leen fu juróom di reeñooy mu juróom benneel leen bu reeñoo ba gënee tuuti ma nga fa bu gënee bari ma nga fa kooku koo ba koo yëg danga koy bàyyi xel ci sa lépp mu yor la sa lépp bu ngeen fi jógee maanaam bu séminaire bi jeexee ñu bàyyi xel mu mujaahadatu nafs mujaahadatu nafs kër këri ci bakkan kër-këri ci bakkan ndax li muy yàq bari na te it baa ngay wax wa amma man xaafa maqaama rabbihi fa inna al jannata koo xam ne fexe nga ba sa bakkan soo si signalé gauche jàdd góos soo signalé droite jàdd droite bakkan bi mun laa tee jàdd fi nga bëgg a jàdd gauche ak droite suñu borom nee na képp koo xam ne ki wommat nga sa bakkan ba bu ne boo nu jógal ngeen bokk jóg fa innal jannata hiyal ma'wa yàlla na ko am ngeen am ko bakkan moomu la sunu borom wax wa nafsin wa ma sawaaha fa alhamaha fujuraha wax lu xew mu ne qad aflaha man zakkaaha wa qad xaaba man dassaaha qad aflaha man zakkaaha verbe bi nit lañ ko def professeur mooy defar bakkanam mënees na koo jàppale nag ba mu defaru ba wax la yoon wi koy defar nu góorgóorlu ñun ñëpp defar suñu bakkan mbokk yi bu séminaire bi jeexee juróomeel bi ci ñuy yóbbaale mooy al i'dadul haraki góorlu ba mën a def nag action waaw góorlu ba mën a def mën a def mooy lan lii doxal penc mi nga mën caa dugal sa loxo lu lii doxal penc mi nga mën caa dugal sa loxo bu fekkee loxo la laaj bu fekkee poos la laaj nga mën a làmb sa poos def ca bu fekkee mënoo loxo mënoo poos nag mënoo loxo mënoo poos léegi xol a fa sës wa dalika adaful iman nag ku sa xol bokkut nag bokkoo yonente ba nee na bu penc mi amee lu jagut koo koo gis ci yéen fal yu xayiru penc mi nag léeg-léeg ñu gis lu jagut daal ne wax leen ci sunu yonent boo xewul noonu daf ne ko gis lu jagut jéema la defar léeg-léeg boo amee mbokk léeg-léeg nit ñëw netti la ci bokk gi lu dul noonu déedéet addis bi nee na loola mu lay necc li ki ko yëkk ci di ko wax nee ko xee mu yem foofa waaw ndax lu ko moy dana la wax lu lu la metti loola metti la tax nga bañ ak bokk bokk gaag yooyu bu fekkee amoon niveau bu fekkee amoon niveau moo tax mara amin ko mun karan keroog ca ndeysaan Parcelles Assainies ñoom imaam Samb imaam Masamba kon nekk fële ca de euh, Touba TV te yor fa min barul Quraan <laughs> yal na ko yàlla yokk wér moo ko sunu mbokk ma leen moo duggee dañ fi ñëw mën a leen léegi dafa am alis buy wax man ra amin ku mun karan damaa bëgg ngeen may ma ko tey ma ko ñu ne acca may leen alis bi nee na man raa ku gis min kum ci yéen mun karan daara yu àggagut fal yu xayrifu bu yadihi na ko àggaleeg loxoom loolu laa ko tawile keroog man raa ku gis ci yéen mun karan daara ju àggagut yu xayrifu na ko na ko na ko àggale ci loxoom am na ñoo xam ne mën nañoo xëy def daara seen dara xajul ci daara waaw yaayu daara ji am daara ci jam ñaajo euh, premier dame yeneen yaayi daara yi ku ci nekk fexeel ba am daara fexeel ba am daara boo fexul ba am daara it nga dugal sa loxo ci daara ba yëg ne bokk nga ci daara waaw waaw suñu waxtaan waa góor gi Ablaye xuma ci caaru caaru azir lu am solo la lu ama am solo la man ra amin ko mun karan kon seminar si séminaire bi jeex yóbbaale leen eh, al alxaraki al i'dadul xaraki mooy jéem a def dara ndax inna laa stara min al muminina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul janna ndeysaan waaw waaw eh, boroom xam yi lu ne am na ca ku ca spécialisé wu roq bu ne suñu fexee ba kenn ku ne lam man ñu fexe mu def ko ci pénc mi pénc mi jàkk ulama yaa ngi ci dëkk bi bi rajo yi gën ubbeegut privé yi kenn xamutoon ñoom ñoom oustaz Thiam euh, kenn xamutoon ñoom oustaz euh, Baye Tuuti kenn xamutoon ñoom oustaz Cheikh Ahmed Tidiane bi tey ñoom oustaz Mor Thiam laa bëgg wax ca ca rajo ba kenn xamutoon kenn xamutoon ñooñu nga xam ne ñoom ngeen dégg ci rajo yi yéemu ñi rekk ci mën a wax daxala dugg naa xaraja génn na déedéet am na yeneen yoo xam ne mën nañu ko seen compétence ak seeni taxasusaat may na leen ko waaye nag léeg-léeg ngis ci ko xam ne kii kaar kaar tabarkal la munta sulib sëb luy loolu dañ koy yemale rek ci jàng ak jàngale daxal dugg na xaraja génn na ak ustaas jërëjëf déedéet dañuy fexe ba ñooñu liñ yor ci xam-xam ñu yulli ko sotti ko sottil ko penc mi sottil ko réew mi loolu nag buñ ci xaar état déedéet ñun ci sunu bopp maanaam peuple bi ñoom ñoo ko man danaay wax ne peuple Soudan de ku leen toppandoo woon ci loolu da génn ci réew mi ay borom xam-xam ay daara yoo xam ne tabarkal la malheureusement malheureusement ñun sunum réew ku ci nekk rek loo loo am jàpp nga ne yaa ko moom bu xëy bàyyi ko fi dem alhaakumu takaasur hatta zurtum maqaabir loolu lay jàngale waaw mbokk yi séminariste yi parent yi mbir maa ngi noonu yooyu lu am solo la su ko defee ci to ci ruq boobu ñu iti ji alwaaqi ñu iti ji alwaaqi fi ñu toll tey nu ñu def ba romb ko bu ëllëgee waaw fi ñu toll tey nu ñu def ba romb ko bu ëllëgee ndax dafa am action ci lislaam waaye am action ca safaanam action ca safaanam am na ñu mën a jël seen xaalis def ci lislaam waaye am na ñu ko mënul am ñu mën a def seen xaalis ci ceddo ak lu ko gën a yaatal waaye am na ñu ko mënul rekk waay bu séminaire bi jeexee ba ñu attesté leen ba ku nekk dem na ngeen yóbbaale ne da ngeen a war a fexe ba def ci alxarakal islaam yi te mooy loo xam ne boo ko defee bu ëllëgee sa borom fay la fay say bokk te itam sam penc ci jële ca ngeen fi jógee ba ngeen demee ngeen sàmm environnement bi li ngeen fi jote jàng dafa bokk ci action ngeen sàmm environnement bi jar na léeg-léeg ngeen jël seeni ratu jël seeni bale tabarkalla fu ngeen gis mbuus for fu ngeen gis lu takk ngeen dindi karkaas yi oto yi ci roq ya koñ yi roq-roqaan yi ngeen luqar ci leen ah tabarkalla am ci ndigal sànni yëpp bu leen kenn fayutit sunu borom ma nga ak fay tabarkalla te volontaire yaa la ca yàlla yi fay moo ëpp kaay leen fay ma ma defal leen nangam bu nu ngeen ci jógee na ngeen étudier na ngeen étudier ci social nan la ñuy def ba liñ am ñu bokk ak bokk nan la def ba liñ am ñu bokk ak suñuy bokk loolu itam tomb la boo xam ne bi war ngeen cee góorgóorlu fexe ba ku amati bokk ak say bokk ndax jalub jël ñu xëy jal la amul solo li am solo mooy boo xasee boyal sa furna ba mu am këriñ ngay ngay ataaya fexeel ba waa koñ bi yëpp ku ku jël ku tibb nga may ko mu tibb bu ko defee ñëpp seeni seeni fon fourne dana boy ñu ñu ataaya te du tax sa sa fourne bi dara manqué ci bu ngeen fi jógee ñu delloo ci kër yi ñu bàyyi xel ci économie bi économie bi liggéey loo mën a mën a liggéey boo munta denc doo man doo doo bari le wax ma nag denc rek ba faw mooy boo liggéeyee téeméer bëgg a lekk ñaar téeméer doo dem doo dem de wàllu économie dafa soxla woo am compétence def ca sa temps waaw tabarkalla te itam gérer ko niñ ko bëgg a bu dara ruusee nga lekk ca dara deñ ci dara loolu la yonent bi jàngaloon ci tabaski kulu wa daqiru wa tasaddaqu lekk leen ci saraxe leen ci denc leen ci séminariste yi bu ngeen fi jógee nangeen bàyyi xel ci ñu étudier wàllu politique tem bañ a mel ni mu mel ci pénc mi nga xam ni ñëpp dañoo defe ne baaxul ñëpp defe ne ab sëriñ waru koo def te sëriñ yëpp sallallahu alayhi wa mooy seen sëriñ sëriñ yëpp sallallahu alayhi wa sallam mooy seen sëriñ te ba ñëwee almadina def na fa politique boo xam ne ba ba jamonoy tey jii waa penc maa ngi xalaat waa penc maa ngi laaj loolu lu xew waaw waaw mu ngook bu ñu fi jógee ñu def diraasa ñu étudier la science waaw liñ ci mën a yaatal ci penc mi ak liñ ci mën a def ba nouvelle technologie du nu yàq du nu yàqal du nu yàqal duñ yàq ndax léeg-léeg soo ko seetloo euh, nit mën naa nekk ci whatsapp am mu yandu ca am ku ko orienté ca dara mu nekk ca loola ba lim war a def moom du ko def su boobaa kooku jël na si yëf te itam léeg-léeg nga gis ci ko xam ne ci day yalwaan ku ko déglul euh, audioom waaw ku ko naan ku ko déglu wala boo ko ko partagé da am nangam léegi lan la ca bëgg yow kay fexeel ba góor góorgóorlu rek ba lu lu ca baax jëlal waaw loolu lu ci am am solo la buñ fi jógee walla ngeen jóge fi ñu def ay entraînement ci mën a topp yàlla entraînement ci mën koo jaamu entraînement ci mën a julli ca mbooloo ma bu koor gi ñëwee ñu mën a woor ñun ñëpp waaw ñu mën a woor ñun ñëpp bu aj màkka ñëwee te fekk ubbi nañ yoon wi ñu mën a aji màkk ña toll ci aji waaw bu ñu si jógee bu leen bàyyi mukkati toog ci jataayi xam-xam yi jataayi zikri yi bu leen ci bu leen ci di gëj waaw ak itam di xeeñtu sunna sallallahu alayhi wa fam jaaroon ndax fam jaaroon jaar fa day may noflaay fam jaaroon jaar fa day maye sécurité ngeen fi jógee ngeen jéem a jàng alquran jéem a mokkal la ngeen te mën a mokkal jéem a tafsirlu la ngeen te mën a tafsirlu waaye ngeen nekk ñoo xam ne da ngeen di am engagement wu lépp loo xam ne xam ngeen ko ngeen jéem koo jëfe te tabarkal la jéem a topp sunnas alxulafaw rachiduuna min baadi ginnaaw bi fi yonent bi jógee ngeen ormal mag ñi rawatina sunu mag ñi nga xam ne ñooy sunu mag magi réew mag yu démb ya ba ci magi tey ku ngeen gis ngeen yëg ni kii moo ma gën bu leen wax mukk maa gën diw bu leen wax mukk maa raw diw waaw na xam ne daal tabarakallahu yëf yaa ngi noonu yàlla nu jariñ mu jariñ leen su fekkee lii lépp am na nag wa yawma isin wa yawma isin yafraxu almuminuuna bi nasrillah wa yawma isin bu keroogee yafraxu dana kontaan almuminuuna séminariste yëpp bi nasrillaahi ci seen attestation yi nga xam ne jëlee nañ ko ci xew-xew bii jërë ngeen jëf ci ànd beeg si defam seen rajo tabaarakallaahu bu ngeen déggee fan yi nag ay division ngeen xam ne danoo nekk ci nopp la dañoo nekk ci bër sunu mbokk yi xëy ci xibaar yaa ngi ni taxaw yor seen i kayit